surtout ali imran moy saru fami imran imran mo jur yonti yalla isa imran mo jur soxna maryam mi jur yonti yalla isa alayhi salam yaxtasu bi rahmatihi man yasha kuko ko jàngat te dégg ko dina yok sa ngëm te dina tax do iñana ken ndax da nga xamne du ken yalla rek la borom bi wax ni ci bi neena moy jagleel yermandem kuko sop mbok ñaara ngi ni bokku lepp ki bari xam-xam lol, te ki xamul dara te amana ñom ñaar ñep jang nañ ko mbokk yi ñaara ngi ni ñoo bokk lepp ki yor alal ju bari lol ki yorul dara te amana ñom ñep ngi liggey mbokk yi ñaara ngi ni ki ngi wir cing dara jotu ko kii ba mu juddoo ba tey ci ay feebar la nekk te boo moytuwul moom lay deewaale te te effort bu nit di def pour wër rek def na ko waaye la mbokk yi ñaare ngi nii di wutandoo nguur te ñoom ñëpp jàng nañu amaan na sax kenn ki gën a jàng lool waaye kay jóg rek wuti am ki ca des wut ko ay at mënul fexe ba am ko yàlla la mooy joxe cër ñaare ngi nii di xëccoo ay ndomba tànk ci ay société wala ci ay entreprise kee bu yuutoo rek am kii bu téye du am ñaare ngi nii di def examen examen bu ñu def kële dagg jàll dem yoonam kii examen bu mu def raté te amaan na sax moo ko dàq jàng yàlla la waaw nee na noonu la ko toppee nga gis koo xam ne diplôme bu nit di yor rek yor na ko terewul ma ngay chômer ba tey mënul liggéey nga gis koo xam ne mënul yor benn diplôme te lu nit di def pour am ko rek def na ko waaye loolu la yàlla dogal nee na loolu nag boo ko seetee da ngay xam ne dëgg dëgg dëgg mbir mi yàlla la ñaara ngi nii sax di yëngu kii bëri la njaboot lool ne ci néegub sayam ki yorul benn njaboot yàlla la su ko defee nee na yooyu yàlla di dogal yow bul xool jëmmi doomu aadama ci boppam xoolal ka koy dogal ca suuf kumu subhanahu wa taala nga bañ a contrecarré dogalu yàlla loolu mooy su mooy jagleel moom suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem nag man yashaawu ku ko soob ci jaamam ñi mu yëkkati cër jagleel la yëkkati xéewal jagleel la yëkkati teraanga jagleel la yëkkati wér gu yaram ak ak ak ak yu dul jeex lépp lu doomu adama di soxla ndax wallaahu buur yàlla kat dul fadlil azim mooy boroom cër yu kawe yi wala nga ne dul fadlil azim mooy boroom ngëneel yi dul fadlil azim mooy boroom xéewal yu kawe yi yal na ñu boole ci jaamam yi muy xéewale sadaqallahu al azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu